mooy borom bu jëlee bu jëlee. mais Aba. yaa doon sànni butéel yi. waaw borom butéel yi. borom kees bi borom micro. Gracias. kon euh, nag gis nañ ne bu ñu koy gën a wan ko tout le soutien bi nga xamante ni sukkandiku jéem na ko ak di leen remercier ci seen courage parce que ñun ñoo ngi woon ànd ak ñoom ba tribunal verdict bi daal di def si nag am na noonu am na si tous c'est le premier verdict qui confirme le procès en appel de Barthélémy Dias, honorable député qui reçoit Barthélémy les députés et maire pour leur dire un grand merci pour le soutien et la présence voilà les images parlent d'elles-mêmes d'abord, parce qu'il n'a pas été honorable. Parce que nous sommes très fiers qu'il soit à l'Assemblée. Mais monsieur le maire, la jeunesse dakaroise, et je pense que je peux parler sur le compte de Bassirou Samb. Les gens ne se sont pas mobilisés aujourd'hui parce que vous êtes le maire de Les gens se mobilisés parce que vous êtes un citoyen qui à tout instant, quand le peuple a été en danger, vous êtes mobilisé pour que les gens puisse s'en Et je le dis en toute honnêteté, et je le puisse au plus profond de nous. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, je ne pense pas que le président Sonko aurait été là. La dernière fois, j'ai eu une dispute avec une personne quand vous avez pris le métisme. Et j'ai dit, je reconnais aujourd'hui le camarade avec qui j'étais sur le terrain. Monsieur Guy Kesby, mon homme pour bien le payer. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, le message que nous lançons, fait que vous nous représentez au niveau de l'Assemblée. je suis d'une idéologie qui croit en la lutte des classes. Et je pense que vous l'avez compris. Vous nous représentez en termes d'exemple. Vous avez parlé d'une loi que vous allez mettre en œuvre, mais n'oubliez pas la jeunesse qui vous regarde. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis très fière de voir Abbas qui ne se laisse pas faire. Je pense que c'est lui qui m'a un peu réconcilié avec mon troisième <laughs> tous ceux qui sont là ne sont pas là parce que vous êtes le maire de Dakar. Mais ils sont là parce qu'à chaque fois que chacun d'entre eux a eu un besoin, vous avez été prêts. Et je parle parce que c'est des, des, gens qui ont travaillé avec vous pendant plusieurs années qui m'ont dit Aïda, le maire Barthélémy Diaz, des fois, il a, a un très fort caractère, mais c'est quelqu'un de généreux. La générosité, ce pas le fait de prendre de sa poche et de donner La générosité, c'est d'être présent, autant dans les bons moments que dans les moments les plus difficiles. Et mon camarade honorable député Abba May, Abba, qui pour moi est mon député de choix, il a eu à faire ce témoignage-là dans son bureau quand nous avons été deux. Et en conclusion, parce que ce n'est pas une rencontre politique, c'est pour vous dire que le soutien de tout un chacun, c'est un soutien sincère. c'est un soutien désintéressé parce que nous savons que vous irez au bout des attentes que nous avons. Et autant vous irez au bout des attentes que nous avons, nous ñu ngi lay ñaanal bu du fanal wér di ñaan yàlla aussi nga bañ leen may la possibilité ñu ñuy xañ le maire que nous avons vous êtes très euh, nu ñu koy waxeetee euh, très très très mais pensez à ceux qui sont je ne dirais pas derrière vous qui sont avec vous Parce que nous, nous croyons que la camaraderie, c'est le fait de se dire des vérités, c'est le fait de résoudre des problèmes, mais le fait d'être présent pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et M. Sonko, euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire le mariage, là, mm. imam. Mais en réalité, euh, M. Romain... M. Mais leo Adjana, comment vas-tu Ça va bien Ça va Ok, ouais. Ça va bien. Ça va bien. bien. Merci, merci beaucoup, merci. Ça va. انا اسمع انا مامي ها

wàcce ay malaayika wàcce ay police ak gendarme wàcce ay malaayika ñu tasaaru biir Dakar wala biir réew. ba jox la nga doon. mais danañu tase ci yoon te du yàgg. non mbetteel amuñu ko ci. ban mbetteel. mbetteel ak li xew ci vote yi mbetteel ak la xam ci ci installation assemblée nationale. mbetteel ak leneen ak leneen ak leneen ak liy ñëw. mais ñun xam nañ lépp. mais que duñu wax wala yéen jàpp ngeen non ñun jàpp ñu alhamdulilah parce que suñu doon alhamdulilah. Barthes def recours bu doon alhamdulilah rek mu dépendre ca loola. li ñu dëgg la tey mais ñun dañu gëm ni li ñuy wax ay sos la Macky Sall dafa gëm ni li muy wax ay sos la parce que moo njëkk a taxaw ci écran yi wax nit du weddi boppam góor du weddi boppam góor du xëy na ñuul na ba pare xëy suba ne weex na. rek ou si dëkk. waaw moom mu ngi gaañu ba pare mu ngi génn incha allah. Thank you.

parce que xoolal la yàgg. fii koo nar a xaar da ngay moom Dakar ak ñu ñoo moom. tous. lan moo tax a déplacé wu encore. waaye yow ñu tax a déplacé wu. mais même peine bi ñu maintenir également loolu aussi. même la ku def dara ku def dara ngay doo six mois deux ans kii deful dara de. moom moo ñëw fekk suñu te xamoo nag yàlla doo nga xam te xamoo. mais yaakaar ngeen mu yem ci fii la war a yem sax. fii war a yem parce que li mu doon dàq moom li mu doon dàq mooy 6 mois yi mu doon bañ moom lañ ci mujj daanaat. waaw ah, boo ko daanee te deful dara nag nit moom xam ku def dara ngay dàq 6 mois wala 1 an deful dara ñun daal jàmm rek la ñuy yëngu Sénégal moom jàmm la jàmm la yëngu da ngay ñaanal lu mu bëgg nag ak Dakar am yéeneem ci waa Dakar yàlla na ko yàlla may yàlla na koy may seen incha allah si kattanu yàlla lu ñu yaakaar.

Instagram Instagram Instagram D'accord, d'accord. En euh, on est, ici en tant qu'élu, puisque le fond du débat concerne les élus au Sénégal. Euh, que, le maire ici a été élu avec plus de 100 000 d'écart par rapport à la coalition présidentielle. Je ne parle même pas de son score. Je parle de l'écart entre et la coalition présidentielle. Ceux qui veulent nous, imposer des débats sur le des mandats, doivent savoir que c'est ça les vrais débats. Le vrai débat, c'est le statut de l'élu local. Ah, c'est quoi être maire au Sénégal C'est quoi être maire de la capitale Comment un élu peut être dans sa mairie, être agressé par des nervis et être condamné Comment on peut être maire de Dakar, avoir un budget, avoir 300 000 francs de salaire Aujourd'hui, les gens te parlent de cumul de mandats. C'est ça les préalables qu'il faut régler. Et je pense que cette condamnation-là, ce procès-là, c'est quelque chose qui doit

euh, qui nous ont, je devrais dire, euh, assez surpris. Parce que lors des deux jugements, il y avait assez d'éléments pour montrer euh, son innocence et pour faire en sorte qu'on ne puisse pas en réalité, euh, qu'on puisse donc avoir une bonne présomption par rapport à la justice. Maintenant, comme tout à l'heure, une de vos collègues m'a posé la question, le reste euh, sera euh, une, décision personnelle, donc nous attendons de voir ce qu'il en pense lui-même. Mais nous sommes désolés euh, qu'il ne puisse pas être purement et simplement acquis. Monsieur le maire Bassé, au maire de Dakar et que vous êtes son adjoint également. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui après le procès? Oui, je pense que ni ma ko waxee ce matin rek ce moment-là waroon nañu ko dépasser parce que dix ans après on prend un homme boo xam ne il n'a fait que servir son pays il a été au devant pour tous les combats <coughs> excusez-moi démocratiques de cette nation. Cet homme ne mérite pas ça. Cet homme méritait d'être d'être chanté, cet homme méritait d'être montré en exemple à la jeunesse. Mais malheureusement, avec ce régime euh, du président Macky Sall, ce régime dictatorial, on veut utiliser ce procès comme un appel de démocratie. Je rappelle qu'en 2011, quand Jean-Paul Diaz venait dans cette même là. Et c'est Macky lui-même qui avait dit que Barthélémy Diaz avait été agressé. Je pense que Barth mérite respect et considération. C'est pourquoi vous avez vu tous les élus euh, parlementaires comme euh, municipaux pour montrer leur soutien et leur Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire une déclaration, monsieur le maire, par rapport au procès du oui. maire de Dakar oui. Oui, en fait, euh, voilà, donc nous venons d'apprendre, euh, comme euh, tous les Sénégalais, nous venons d'apprendre avec stupeur la confirmation de la condamnation en première instance c'est qui ne nous satisfait pas du tout, parce que nous considérons que l'affaire Diaga Diouf est l'une des tâches noires de la démocratie de notre pays, et que c'est dommage que l'honnête citoyen qu'on a trouvé dans son lieu de travail, qui de surcroît un élu du peuple, qui soit, qui soit attaqué, qu'il puisse se défendre et qu'il soit confronté à des déboires judiciaires. Nous déplorons encore une fois vraiment la mort de Diaga parce que c'est un Sénégalais. Donc nous compatissons et nous présentons encore une fois nos condoléances à toute sa famille éplorée. Mais sur cette affaire, nous estimons que la justice n'a pas joué pleinement son rôle. que vraiment, c'est dommage que la justice de notre pays soit encore, fois, soit une fois vouée aux gémonies parce que rendant des verdicts aux antipodes de, de ce qu'on peut considérer comme euh, démocratique. Donc aujourd'hui, nous sommes plus que déçus. parce que l'honorable député maire Barthélémy Diaz mérite vraiment toute la quiétude qui sied par rapport à l'exercice de sa fonction. Et nous osons espérer que, que cette affaire-là puisse être derrière nous, puisque lui, il puisse être focus sur euh, les problèmes, sur la satisfaction vraiment des, des, des, des besoins pour lesquels les Dakarois l'ont porté à cette station-là. Euh, encore une fois, nous marquons tout notre désaccord par rapport à à ce verdict-là qui a été rendu à la hâte parce que n'a même pas donné l'opportunité au maire d'arriver au tribunal et de se mettre à la barre pour entendre de lui-même le verdict. Donc cela prouve encore une fois que nous avons vraiment affaire à une justice aux ordres et ça n'honore pas la démocratie de notre pays. mën nga ko wax ci wàll. waaw euh, yaakaar naa verdict bi tey euh, vraiment ak euh, ko yëgee. sénégalais yëpp ñoo ci am betteel sénégalais yëpp ñoo ci am betteel sénégalais ñoo ci am naqar parce que affaire Ndiaga Diouf affaire la bu nga xam ne vraiment honoré wul la démocratie de notre pays aujourd'hui ci histoire politique bu Sénégal affaire Ndiaga Diouf daf ci bokk loo xam ne daf daf koy gàkkal donc tey nag amoon nañu yaakaar ne affaire boobu dina nekk derrière nous et que le principal mis en cause dans cette affaire là qui est l'honorable député Barthélémy Diaz daan nañ ko blanchir acquitté ko pour mu mën a dellu ci njabootam pour mu mën a vraiment dox ay soxlaam pour mu mën a aussi tamit matal li nga xam ne moo taxoon Dakar waaye teg ko fa mu nekk ni tey donc euh, lii dafay wane rek ne suñu justice bi wax dëgg yàlla fi ñu ko doon xaar àgguñu fa donc lii dafay gàttal rek la posture de notre de notre justice ndax boo xoolee moom jotul sax àgg tribunal balaa laata muy génn këram lañ ko lañ ko informé du verdict qui été rendu à la at donc loolu day wane rek ne justice bi jusqu'à présent vraiment am na ñu ko ŋànk am na ñu koy manipuler am na ñu koy doxal te loolu bokkul ci ñi nga xam ne day jëmale kanam démocratie bu réew donc euh, ñu nag en tant que Dakarois vraiment en tant que sénégalais li xew tey vraiment rafet wuñ ko te ñaawlu nañ ko ba fu ñaawlu mën a àgg Xavier mi ngi lay tooñ naan la borom tey ñu ngi fii au sortir du procès euh, euh tey bésu naxar la euh, comme yeneen naxar yi ñu am yi Sénégalais yi di rek depuis 2012 ak président Macky Sall bésu la comme ni ñu amee yeneen gàcce askan bi am yeneen gàcce depuis euh, tey on a assisté. à un simulacre de justice on a assisté à une parodie de justice li am tey day firndeel li ñu yàgg xeex muy kumba am ndey ak kumba amul ndey bi am ci Sénégal ci fànn yu bëri rawatina ci yoon rawatina ci justice boo àndee ak Macky Sall dara du la dal loo munti def dara du la si fekk waaye boo nekkee koo xam ne day défendre njëriñu askanu Sénégal et de manière intransigeante te loolu mooy marque de fabrique ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire député monsieur le député maire Barthélémy Diaz eh bien bu boobaa euh, justice dina la tongali bu boobaa gendarmerie dina la tongali bu boobaa euh, dinañ def yëpp pour nga bañ a nekk maire bu boobaa même boo nekkee maire ñu continuer euh, dina la buntu xatal lu ëpp juróom fukki nit bokk ci sa cabinet ak ñoom seen ñu bloqué seen salaire lii mooy ndumbelaan bi nga xam ne noonu la président Macky Sall transformé suñu réew muy Sénégal or dama koy faral di fàttali le projet c'était un peuple un but une fois et non deux peuples deux buts deux fois deux peuples mooy benn peuple boo xam ne lu ko neex def sàcc ak xaalisu askan bi këpp kees randal rey nit torturer ay nit ba ñu dee sàcc suufu askan bi du mujj fenn président Macky Sall jël concom teg ko ci dossier teg ko ci li nga xam ne moom mooy loosu justice mais boo nekkee un patriote un patriote authentique comme Barthélémy Dias yow mënoo am jàmm say mbokk mënuñu am jàmm say xarit mënuñu am jàmm ñi ngay àndal ci wàllu politique say collaborateur duñu am jàmm donc li xew tey bettuñu je crois ku yeewu tey Sénégal nga gis Auchan yi tëj ay auto gendarmerie garé fa fii rek ci koñ bi waaw tu as l'impression que gendarme yu nekk Sénégal yépp ñu ngi autour de la maison ñu ngi ci biir quartier bi ku yeewu tey ce matin gis réew mi ñi mu tëddee ak gendarme yi ni ñu nekkee ci mbedd bi waroon nga comprendre ne li nga xam ne mooy décision bi na doon daal parce que personne n'a fait un appel à la mobilisation lu dul ne député yi dañu ànd ak ki nga xam ne mooy seen naataango monsieur le député maire Barthélémy Dias donc on s'attendait un peu à cette décision euh, nous ne sommes pas surpris mais nous sommes tout même choqués nous sommes tout de même choqués, comme nous le sommes à chaque fois que nous constatons que le droit n'est pas dit. Comme nous constatons à chaque fois que euh, le président Macky Sall moom mooy manipuler exécutif bëgg manipuler législatif di manipuler euh, le judiciaire loolu nag mooy combat wu Barthélémy Diaz mooy suñu combat bi ñëpp nous sommes venus aujourd'hui exprimer toute notre solidarité mais sans réserve totale à notre camarade, à notre frère, à notre maire, à notre député, euh, Barthélémy Diaz. Et la lutte va continuer. La lutte va continuer parce que bu fekkee dañoo xalaat ne lii moo ñu tax a dellu ginnaaw eh bien le président Macky Sall qu'il sache que il est en train de se foutre le doigt dans l'œil mais jusqu'au coude. La lutte va continuer. Barthélémy Diaz va rester debout. Barthélémy Diaz la lutte va continuer, les patriotes vont rester debout, les patriotes vont se battre, les patriotes euh, vaincront. Euh, comme Nico Batlemi Diaz Don Warsang, ça fait 10 ans que nous résistons, ça fait 10 ans que nous nous battons, ça fait 10 que nous, que nous faisons face. Depuis quelques mois, le rapport de force a changé. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons flancher, ce que nous allons lever le drapeau blanc. La lutte va continuer jusqu'à ce que ce pays la change, ce continent la change, change. Voilà, l'exécutif change, l'Assemblée nationale va changer. Et ça sera par la force, il n'y a pas de choix. Donc que tout le monde reste mobilisé. Que tout parce que oui, nous sommes les premiers boucliers de Barthélémy Diaz. Nous sommes les premiers boucliers de toutes celles et de tous ceux qui se battent pour un autre Sénégal dans une autre Afrique. Je vous remercie. Euh, bonjour. Comment Présentez-vous. Ah, bonjour, je suis euh, la ville de Dakar, chargé de l'urbanisme et euh, de, la protection du littoral. Donc en fait, là je suis venu aujourd'hui, c'est pas en tant que euh, politique, politicien, mais plutôt en tant que frère, pour soutenir mon qui, quand on a besoin, il est là. et surtout aussi pour euh, l'injustice. Parce que euh, tout le monde sait comment ça s'est passé en fait euh, euh, lors en fait, de l'attaque de Diaga et de ses compères. Donc on sait que voilà, on sait que en fait donc on peut dire que vraiment là c'est de l'injustice parce qu'on pas de preuves matérielles en qui puissent qui puissent inculper Donc euh, par rapport au verdict, euh, on est quand même un peu déçu. qu'ils aient confirmé en fait euh, en première instance. Euh, espérons en tout cas que le maire ne fera pas pouvoir en cassation. Moi, en fait, c'est mon, avis, c'est mon sentiment. Donc, on verra après par rapport à sa déclaration, justement, qu'est-ce qu'il va faire. Euh, bon en fait fi ñëw en tant que frère euh, du du maire Barthélémy Dias mais pas en tant que politique donc ñëwoon pour jàppale ko soutenir ko surtout euh, par rapport ak li ñu ko tuumal mais tey gis nañ ne di justice di wax doyuñu waaye on verra moom ci boppam personnellement dina mën a dina xool ndax dafay pourvoir en cassation. merci beaucoup.